Alaaji Arsène Gueye juróom-ñeent yi doon yëngu ci wàllu déminage jóge nañu ci loxoy César Atoute Badiate libéré nañu leen Sud Quotidien xëy ne ginnaaw juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti fan yu nu leen tey ca kaso lool ñoom juróom-ñeenti démineurs yooyu bawoon nañu ci Makiba di tooli xare yi Casamance Le Soleil ne tey ci samedi ji lañu leen di jébbal ñoom otage woon kilifa yu Sénégal Le Quotidien ak libéré gi jàpp ne César Atoute Badiate def na la mu diggee woon populaire ne ko waaye terew ko nag waxi dëggam de ci yéenekaay bi ma nga ca naan Doudou Badiane ne ci colonialisme sénégalais ci la ñu nekk di nooteelu réewum Sénégal 1982 léegi mu ne Sénégal a nga fay faat ak toroxal seeni gune waa Grand Place ne César Atoute Badiane ba tey mu ngay sàkku indépendance di càkkuteef gu mu donnoo ci abbé Augustin Diamacoune Senghor terewul nag mu ne noppi na ngir toog wërngulu taabal jenn je kilifa yi Sénégal ngir yi waxtaan Hissène Habré moom àttee gunu ko ba xalaat bawum am déet observateur xëyee ko moom président ba woon bu Tchad yéene bu groupe Futur Média ñëwaat ci nanu ko teewee ca pavillon spécial bu hôpital Dantec li waral nag bërëb ba ci mu waroon toog ci rëbës bab docteur gis ne pavillon spécial jar na ko mooy ci gis-gisu observateur kilifa yu politique ak yu yoon ñoo déggoo ci def ko ci anam yoo xamante yu baax lay doon ci kaso bi méngoog dara jaay ancien président yéene kaay bu groupe Futur Média jàllale kàddoom moom Hissène Habré mu naan bu bëggoon xaru foofe mu ne sax ci pavillon spécial kenn mënu ko koo tere waaye daa fekk rek mu ne ay noon ñooy ngawti mais fanu ko denc du fu bon fu bakkane sax bu weesoo rek mu ne njaboot gi nu ko sorile ñu des ak observateur wax ci wàllu politique yéenekaay bi fësale màggeeti arène politique bu Sénégal Moustapha Niass nga ca Ousmane Tanor Dieng Landing Savané Yoro Dia analyste politique ci yéenekaay bi di ci def njàngat lu ñeel Moustapha Niass mu ne def na sànni tàccoom ndax nag jongante na ci wàllu palam njiitu réew 2000 2007 2012 ca nag AFP nanu jànge ci PDSD mu ne bañ a def njumteg bàyyi màgget geneen wuutu ko moom Moustapha Niass nanu teg ci wuutu ga am ndaw mu ne Tanor Dieng mu ne am na mérite lool ndax nag sauvé na parti socialiste budul woon moom bi ñàkkee nguur gi ñu daal di fa doxee ne mes waaye nag ñàkk ñaari présidentielle ba noppi di ñaanub ñetteel du xel APR moom Walfadjri yéenekaay moom la xëyee parti président Macky Sall bi jàpp ne moom président sax bu doon ab saret dañu ne reen ya rëcc na ko ndax nag fa laxoo seen biir ku ne yónnee sa morom kurpañ Moustapha Cissé Lo Mor Ngom yéene ne ndogu Moubarak ngir presse bu Sénégal populaire ne suukaru kooru président la ngir patron de presse yi daf leen a pour cent ngir nag kërum tasum xibaar yi nooy waat as président gis ne presse bi jën la bu am solo ci mbaar mi tiim réew mi waaye mu fekk nag ñuy boole saa su ne responsabilité ci li ñuy wax di ko bind ko wane ci direct info président Sall di ci leeral sax ne moom sax daa amul jotug tëj benn kërum tasam xibaar xibaar wàllu làmb Mohamed Ndao Tyson ba tey ci kaw donte day daanu di mëq suuf di ami année blanche tous les sports ne téeméer ak na ko ngir diggam ak Gris Bordeaux li waral nag muy jar ba tey moom Tyson Aziz Ndiaye ci tous les sports ne annonceurs yi seen bopp ñoo bëgg produit Tyson Malick Thiandoum jàpp it ne daa xam nag bu baax promoteurs yi moo waral it moom Tyson muy négocier bu baax ak ñoom waa sport ci wàllu njàngat ci li waral moom Tyson di jar ba léegi ànd caa expert ci wàllu marketing sport ak publicitaire Charles Gueye moom jàpp na ne Tyson dafa man xaalis mën a jaay bisam mooy it mbër bu njëkk a ñëw ak xelum man ci arène bi ramassé wërsëgam dem mbër yu njëkk yi wàllu carrière lañ daa xalaat fulaam nag ak xam la muy peese it ca la ndax nag du dem di saraxu mu ne benn promoteur làmb day toog ci ruqam ak njarteem di xaar ñu ñëw ci moom lii de la woykat ba doon wax ne di daanu mel ni yaay daan sunu làmb fësale ko moom Mouhamed ndaw Tyson yéenekaay bi ne mooy roi du sport business ma nga naan ci yéenekaay bi dama ñëw ci làmb ñi ngir liggéey sport business laay def sama business sama bakkan laa ci def waaw góore ndaw defantu baaxul ci dara def rekk